lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. ma wax ni yéene nekk la borom a tey fanaan wax. yéene nit la borom a cay fanaan dafa am ñaar ñu daan ànd ci ak ndaw ba nekk mag waaye yàlla mayu leen wërsëg fu ne ñu dugg fa pour bëgg a am mënuñu am ñu dégg seen benn mbokk mu yàlla may wërsëg ñu dem seen ñu ko ñun daal lu ne dugg nañ lu ne def nañ waaye mun ñëw fexe ba réussir ñu bëggoon nga dimbali ñu mu xool leen ba yàgg ne ah seen ànd bi de yàgg na ba nekkee tout tànk ba léegi waaye léegi xam ngeen nu ngeen di def da ngeen di bàyyi ba suba ngeen ñëw bu ngeen dee ñëw kenn ku ci ne la indaale benn xottu saak ñu génn ñoom ñaar daal ne ah ñun ay seex lañu ay doomi ndey lañu nañ jaar ci usine bi commandé fa ñaari xottu saak commandé seen xottu saak mu nuroo mel na mu war a mel ñu xëy kenn ku ne daal sa xottu saak ànd ñëw bi ñëwee ci waa ji waa ji ubbi benn néeg dugal fi kenn xam naa ci yow kooku xaw ndaw la sax xaw waaye daal xam naa ni daal bu ma nettalee histoire bi dinañ xam ni mën naa am sant ndaw bi yàlla dogalee ñu dugal ko ci néeg bi moom waa ji waa ji taalal ko lamp wan ko ñaari jal yu nekk ci ni ko lii jàllu lan la mun ko li di ay xel rek mu wanaan ko beneen jal bi ko lii jàllu lan la mun ko lii wurus rek mun ko sa waa ji sa lan la mun ko sama xarit la sama doomu ndey mun ko seetal ñaar yi boo ko ci yéene nga solal ko ni ko boo paree nga fëgg guddi naka mu ko bàyyi ci biir waa ji toog moom di jooy daal ni fu ma mës a dugg rek di wuti moom moo ma ko mu ngi koy mu commencé wutal gaal mënumaa wut dara ba am ko biir moom sama ànd beeg moom moo tax ma dellu ginnaaw waaye tey ji dinaa ko solo ci xeer yi ba bu gisatee ay xeer lay doon keneen ka ñu jël ko dugal ci néeg bi ñu ko dugalee ci néeg damay bañ a tudd euh, aw sant ñu ne daa daa jeey waaye bi ñu ko dugalee moom ci néeg bi taalal ko lamp ni ko jël bii la mu ne ah lii de ñu ko beneen jël bi nag mu ne ah lii de ay xeer mun ko sa waa jëla la mun ci sama doomu ndey mun ko waaw léegi seetal ñaar yi bokk ci yéene a nga solo waa ji tëj bunt bi ñu ko boo paree nga nga fëgg waa ji tiim urus bi di jooy di jooy jooy yu metti xoolal ñoom ñaar kenn ku ne jooy kee jooy na ak la mu wax kii jooy daan ñu tey jii bis bi rek la ma yàlla doon xaare mun a def naa ko pour bëggoon a am teraanga ba teral sama waaj ndekete yoo yàllaa ñu may xaar ci bés bii mu mën a am teraanga ku ma ko terale ba nga xam ni bu fi jógee waxuma moom sax waaye excitation danañ teral ci teraanga boobu ñaar ñi mbokk yi wute nañ ñu sol kenn ku ne sol la nga yéene sa morom tee nga ca wursu tee moom ma nga ca xëy ñu sol ba àggal génn fëgg waa ubbi leen kenn ku ne yàlla ñàkk tooy xet mu di leen xool ba yàgg ni leen seen nuróo gi ak seen saaku yu nuróo yii ak seen col bu nuroo gi man daal xam ngeen nu ñuy mujj rek kenn ku ne daal li nga soloon far ko yóbbu rek kenn ku ne li nga ya li nga li nga soloon far ko yóbbu borom borom borom borom munu dox tànk ya tam ndax yéene néeg la borom ak sax dañuy yéenante jàmm sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz day wax ni te sax xadis la yonent bi moo ko wax lépp loo bañ mu dal bu ko ree yi nit loo gis ci nit ba di ko ree baa nga ni ko ndox bala ngaa dee dana yi xol yi xol yi moo am problème kër yi xatul néeg yi xatul penc ma xatul dëkk bi xatul waaye xol yi moo xat nañ fóotaat xol yi yonent bi neen ala inna fil jasadi mudghatan ida salahat salaha al jasadu kulluhu waaye wa ida fasadat al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb sidna Muhammad neen am ci yaram benn suuf woo bu baaxee yaram yëpp baax waaye su bonee yaram yëpp bon mu ne nag su xool mooy xool ku la gën xool moo dëgg